sëñ bi euh, nga fàttali ñu tur. waaw Abdou Lahad Seck góor yàlla wax. Mhm. Mhm. Euh, Cheikh Abdou Lahad dem na final digganteem ak euh, Algérie yow en tant que sëriñ lan nga gis ci match Sénégal bi nga xam ne suba lañ ko war a def ci àjjuma ji. waaw match bi mun daw ñu wax sax ci lu jëm si football. mbaa lu xeetoog loolu. waaye da comme ñun ay citoyen lan te ci dëkk bi lan dëkk ci réew mi lan dëkk. am na loo xam ne bu nu ko gisee ci réew mi bëgg senegal am ndam ñoo indi coupe bi danañ ko wax moo tax nu génn waaye baaxoowunoo wax ci lu jëm ci ay marché yooyu. marché bi li ma ci gis mooy. Sénégal bu fekkente ne bëgg na loo jël coupe bi. nanu sarxe guro gu weex. guro gu weex guro gu weex. Hmm. nan ko sa ay donga hmm. nan wut juróom-ñaari kilo guro yu weex. Hmm. sarax ko ay bu buñ ko defee danañ jël coupe bi. kon daal bu ñu mhm. Sénégal dina jël bi waaw incha allahu rabbi. Mhm. loolu kay amu ci lu may werante buñ saraxee guro gu weex. danañ toogaat fii ma wax la ko ni jël nañ coupe bi. Mhm. incha allahu rabbi juróom-ñaari kilo yu weex. incha waaw damaa tëdd nag suñu borom xamal ma ko. nit bala ngaa jëf ci mbir mbaa nga di ci dox. na ko jàng ba xam ko. na nga ko xool ba gëstu li ngay wax bu baax ndax wér na wala wérut tëdd naa ay yoon ñu wan ma ko tëdd naa guddi listixaar na ko xool ko lii ma wax daal dara du ko bu buñ sarxee guro yu guro yu weex wut juróom-ñaari kilo guro yu weex ñu sarxe ko insha allahu rabbi Sénégal dana andi ko bi maa ko wax bu ñuy am ñaata ñaata bal la ñuy dugal ah, loolu moom suñu borom xamul ma ko. waaye daal lii buñ ko defee danañ gañe danañ gañe ko bi loolu moom maa wax incha allah. Sénégal dana gañe dana jël réew mi incha allah. mu euh, allah. Hmm, waaw sant yàlla rek julli ci yonent bi di sant Serigne Touba wér di ñaan suñu borom defal ñëpp tawféex defal ñëpp jàmm defal leen tawféex lii lu nu doon la ndax suñu wayjur daana ko def suñuy maam daana ko def ñu nekk ci di ko def. kon bu nu tëddee suñu borom xamal lu ci lii danoon ko wax bu nu xamalaatee leneen it danoon ko wax incha allah rabbi jërëjëf macha